man Macky Sall su bëggaatee waxuma la benn troisième mandat fukki mandat soo bëggee mu ànd ak moom mais ñoom depuis un bon moment xam nañ Macky Sall da doon ñun moom lañ bëgg doon mu doon suñ candidat Ndongo Ndiaye bokk na secrétaire exécutif Stade Mbacké bii ñu doon bi ñuy coow ni da ngeen ko soo dégg mu wax il fut un basketteur terrain basket bi est-ce que mas gën a dégg mu wax sama grand la. xam nga le leader du Pastef moom ci manipulation la nekk et il parce que nag jàpp ne ni noonu la war Euh, opposé wu. lu ñu am comme information ci bu buñ ko tegoon ci place mu ne ma doo jug yow fii nga toog nii doo fa jaay doo fa jugee ñibbi parce que da ngay ragal di Sénégal dafa nekk ci pays bu nekk bu nekk insécurité totale. alors que pendant ce temps yi nga xam ne ñu ngi fële di de di comploter di bëgg a rey président. ba mu doon dee seen parce que ay nit dañu ànd ak man bàyyi seen lépp jàppale ma su fekkoon xaalis laa nu wër xaalis rek laa nu wër. moo am na dina ko am ba doyal. maire Mbacke laay waxal moom moo ngi ni ndox fii di fi courant parce que tey dama naan dégg mu bu njëkk bu naan wax naan dëkk boo nga xam ne nii Mbacke war na dépassé ñu naan fii amul ndox fi amul courant gis naa fi ay terrain yoo nga xam ne ni ay réserve ñu ñu jaay et on sera obligé ñu mën a saisir DSCOS parce que depuis loolu ñu ngi xaar réponse su maire. dana xam ne maa maa maa ngi ñoom danañ nekk si terrain parce que am na loo xam ne ni rien ne sera plus comme ku fi bëgg fooyee waa Touba ak waa Mbacke dama seet sa dëkk nga dem def ko fa